ñu ñëw si di Marius Sagna. non gi moom dégg naa sax jox nañ ko liberté provisoire. non xam nga yooyu yooyu du dara yor sa kaso di jël mbi ci dugal gi Marius Sagna damaa ànd ak moom di ko jàppale ñu bokk philosophie. jeex na encore une fois c'est pas sa personne qui m'intéresse mais il est ambitieux c'est un gars un patriote qui aime le Sénégal fekk si ma ci loolu kon kooku lu ko metti war maa xuri loolu rek la loolu rek la. papa baax na ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal mbokk yi nga xamante ni euh, ñu ngi doon seetaan fii nga xamante ni moom moo di euh, wasaare euh, defe naa ni tey ñoo ko déggandoo ñëw nañu fii ci kër papa. Ousmane Dramé euh, waxtaan ak moom waxtaan bi euh, yaatu na macha allah euh, jox nañ ko wàccuwaayam nag jox ko cëram di la jéggalu baax a baax ci kàddu yi waxtaan bee ko laaj rek moo tax mu demee waaw mu demee mu demee nii di jaajëfal bu baax a baax képp koo xamante ni yaa ngi seetaan wasaare di bëggee di jaajëfal bu baax a baax ah daam si di jaajëfal képp koo xamante ni yaa ngi biir New York

ndax xex dagan na xex dagan na xex bu dagandul won badar badar yonent bi sallallahu alaihi wasallam sallam du summi mbum wut kur taxaw ne ba kenn jege xex xeex bu dagandul won bu dagandul won français yi duñ taxaw ala la réclamer sen indépendance bañ bañ bu dagandul won Fidel Castro du sacrifier bopam ci bëgg mom bopam bañ bu daganul woon ayatollah Khomeini la révolution islamique bi amone terrain ñëpp ko dégg bagn bu amul won dama ne kon yooyu yëpp cheikhou Touré du taxaw bagn Cheikh Anta taxaw bagn Jomo Kenyatta taxaw bagn Modibo bakay tadu bagn dama dégg si sa dama dégg si sa biiri wax doguma la yalla bu la dee dog chaque jour da ngay wax waxi xex te defe naa ni ñun Sénégal réew la boo xamante ni soxlawuñu soxlawuñu ay xeex ay sax non non non dépp mus naa seetaan sa nga naan nga gone yi génn jël jël jël jël jël xeer yi taal punu yeeg yooyu noonu mais est-ce que est que tey yow est-ce yow tey tey tey yow gone yooyu di génn di boole sa doom ñu ne leen dem leen ngeen génn ñu may jëlu yar ànd ak gone yi yow de xamoo ki góor ngay waxal. mais pour pour ñuy génn. xoola waaw Sénégal réewum jàmm la réewum teranga la dañ ñoo. c'est pas vrai du réewum jàmm Sénégal réewum naafeq la Sénégal jàmm mosu faa am du bàyyi Sénégal mosu am jàmm dañ waxtaan rek Sénégal doon. mais mais mais mais mais tamit nag mais tamit nag papa nag réew ma di réew boo xamante ni da ngay génnee nit ñi naan leen dem leen ngeen xeexi taal yi pneu yi bu ñu taalee pneu yi suñu réew li ñu taal. yow da nga ne mi. taal gas station yi laa xuma ay pneu. gas station yi kañ mooy taal réew mi. ay pneu nga da man essence laa taal essence yi laa wax. bi gën a rëy. mu gën a fulli ko laa lay dama nit. nu mu def moom boppam rek dagan na. donc ñoo moom suñu bopp. non non da ngaa fekkee fu ñuy moomee sa bopp dama ne mosu leen nekk ci jàmm Sénégal xamul jàmm mosu leen nekk ci jàmm est-ce que dégg nga li ma wax benn pourquoi mosu leen nekk ci jàmm xam nga mosu nekk ci jàmm mosu leen nekk ci jàmm doo ma ne six siècles six siècles yoo xam ne tubaab yi ñu ni conditionné loolu mënut a ànd ak jàmm te doo ma ne aussi. quatre siècles esclavage di jàpp say maam di peese di jaay xam nga loolu du jàmm dooma ne jamono sëriñ Tuba ak i Lat Joor bi ñuy rey ak a jàpp ak a xam nga loolu du jàmm de indépendance yu bon yi xam nga du jàmm le colonialisme du jàmm le néocolonialisme du jàmm bu heure bii liñ am tubaab bi di ko jël di yóbbu du jàmm du jàmm itam ngay ab julit ab julit war a mën a gëm alxuraan ñu la alxuraan ji fii lay yem bu mu agsi fii du jàmm. lan mooy jàmm taal gaal. da ngaa jàmm. Euh, euh, station mais dafa xeex a jot pour am jàmm. ponkal mun toog ci kaw war koy móol yi lijjantil noo daggee bu mu jog taxaw wutu yat dóor Sénégal bu nu ngeen dem fenn de maaru kilifa yi diine yi di déglu seen affaire baax na seen ñeenti soxna mban na. ñeenti soxna mat na. kilifa diiné yi tamit ay kilifa lañ. mais ma duma kilifa do kilifa yow. mais mais ñom ñom ñom mom ay kili mais ay kilifa lañ chaque jour chaque jour damay dégg si say wax ngay dal kilifa diiné yi nat mais kilifa diiné amul c'est pas vrai baatu khalifa général yi tubaab bee ko fi indi seigne tubaab musta xam xalifa musu ko am xamul li khalifa sax. Alaaji Maalik xam nga. tubaab bi kon ñoom nan la ñuy mën a indee ay. xalifa mais dañ laa brainwash sa yuur def ci nga njàmpe. xalifa la loolu du du baatum tubaab sax. bon tubaab du ko fi yooyu ñu ci naar yi indi ko foofa day fi dara. bon mag lislaam moom lislaam ku mag yaay jiite ki ëpp xam-xam mooy jiitu loolu lislaam wax waaye di wéy sama kaay jiitu yooyu amut yooyu ak sabar sax kenn du ko ci defati léegi ki maga daa xefee déedéet day seet gone gu neex po ñu ne ko tëgg dandi ne ko jógal foo laat na bi toll il fo ñu accepter la science ak accepter les réalités te ñeme dëgg maslaa yi ñu ak di la ci kaw nit ñi da wax sax say wax ñu bëgg laa dóor ci kilifa yi diine yi maanaam kilifa ñu samp yoon yi ñu samp yoon ku mel ne Serigne Touba Mbacké jaanam wàcc na tey buñ gore woon buñ gore woon parce que Serigne Bamba taalal sa loxo tudd sëñ sa waroo koo def li sëñ Touba bind teg ko lu mel ne Masaalikul Jinaan war nañ ko mën a jël gëstu ko ba liggéey ci oto bi daw waaye ay nit ñoo xam ne dem ci bàmmeel naan bisimilah rahmaan rahim di ñaan ñàkk jom la ay gone ngeen waxambaane dem leen jàngi dem li ci laboratoire yi dem leen gëstu ci xam-xam jàkk yi ngeen di rek amul solo ça n'a pas de sens parce que du dëgg alxuraan gëmu leen ko du dëgg demal assemblée nationale nga dugal benn kaamelu alxuraan prochainement n'amène pas ce ce ce bu ko fi indeeti lan lay wax parce que fii c'est un pays laïque xam nga maanaam sa bopp tu n'es pas indépendant tu n'as pas le droit. bëggoon naa laata naa laataa ñuy tàggatoo xam naa ni daanaka yaa ngi ci kàddu tëj ñuy waxtaan ci wàllum formation yeeg yooyu noonu surtout li li ngay wax nii ban gis-gis nga si am. Euh, Sénégal boo nekkee franc-maçon ci nga ëppee jàmm boo nekkee jullit boo nee franc-maçon non seulement da nga mos da nga mos. boo woppee da nga faju boo bëggee dem dem boo nekkee julit yaa ngi ci mus dugg ci gilaawaali goo xam ne gilaawaali goo xam ne xamoo foo koy jooyee da nga bëgg a faj say soxna du faju da nga bëgg alxuraan ji ñu noot constitution bi ci alxuraan da nga koy bëgg du ne du nekk da ngay bëgg am xarum tabaski doom loo lekk waaye booy franc-maçon moom say doom ci école yu baax la jànge xoola Sénégal chrétien yi ça fait même pas cinq. ah ay ci kon papa ñu bàyyi la comme ni may tëjee daal mooy yéen xale yi ah, dóor leen seen bopp yéen xale yi ñun dañ leen di jàppale rek waaye doomu Bureau bu Yeye xalaatuñ ko ci réew mi yéen ko moom ak yeneen génération ñi ngi dikk ñi ngi dikk bàyyi leen réew mi jàmm fi nekk bu li fi ay ñi fi indi ay ay mooy ki fi indi aw ay mooy kii wooye boppam kilifa diine ñu dem ci trésor ji àll réew mi di ko jox muy màggal ak ngam kooku fi indi aw ay ki fi indi aw ay mooy Marème Sall dem ca trésor public bi saagam ci di ki fi indi aw ay muy Aliou Sall li mu bokk ñëpp mu sol ko ci saaku téye koo ko fi indi aw ay ki fi indi aw ay muy président bi nga xam ne maam moom ma nekk doon fii ci réew mi ma man ko lool ma man ko fuuf tey mu doon milliardaire ah dem ba Houston Texas jëm fa kër goo xam ne ñi mu faa dugg man koo ko fi indi aw ay yéen amul ay da ngeen a jommi. jërëjëf may dellu di ñaan kilifa yi diine yi nan ci wax moo am taalibe yi sonn nañ. jërëjëf taalibe nañ. jërëjëf taalibe taalibe jaxasoon tey jën yi jën yi ay yaramu taalibe la ñuy añee requin yi yàpp taalibe la ñuy lekk boo demee ci àllu Brésil bi am na taalibe yu daanu daanu jukki taalibe la ñuy lekk nga dem Maroc taalibe yi di dóor ay yat ak duma dama ne kan jokkaat ci taalibe ndax seen i baay ak seen i maam dañoo ànd ak suñuy baay ak seen i maam moom kóllëre ba fa doxoon ban jël lu ñun ñun tuddal leen leen tuddal leen leen sa bopp ci àdduna ak alam ngeen mënul fii dara nag. Mm-hmm. séenuwul fee dara. jërëjëf dimbali leen ngir yàlla ak bi ngeen toog ci taalibe yi jot na taalibe yi sonn nañ. toqi nañ. Mm-hmm. dàcc nañ. Mm-hmm. xamatuñ fu ñu jëm. taalibe yëpp tumuraanke. taalibe yi am nañu abandonné Sénégal 30 ans mu ngi am na taalibe seen i ndey ak seen i fu nekk. am na taalibe yoo xam ne seen i jabar ñaka ca Sénégal tegatuñ leen bët. am na taalibe yoo xam ne fii rek deeñ suul suul leen yóbbu ba su maa génn kilifa ubbi gémmiñam jëmee ko ci taalibe te ñooy neexal gàmmu yi de ñoo joxe xaalis yi suñu jabaree ni ci waa ñuy toog noo xumbal tànt kon defe naa ne ah, lii leen Macky Sall di mosol dama ne gerdug leen ko gerdug leen ko ñu ànd ak taalibe yi. ah baax na jërëjëf papa ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax mbokk yi ngeen si doon am ATM Seck fii ci euh, wasaare. gis defe naa ni waxtaan bi moom macha allah lu neex na su a dañ koy jàppaat ba beneen yoon incha allah bu rabbi ci wasaare TV jërë ngeen jëf.